jigéen bu am gëm-gëm am pas-pas bëggoon projet bi lol dëkk fi rek ci gannaaw ay Samba Mboy dat koy faagaagal tey njaboot a ngi mi fi toog ci tante bi ndax bayina fi njabot loolu rek waron na tax ñu taxawaat tuuti jagleel ko ñaan waaye buñ ci boolee li mu njum yëpp defe naa politique yàgg na senegal trop waaye lu daje ci diir bu gàttee nii ci ab parti politique boo xam ne song nañ ko fitnaal nañ ko duma nañ ko rey nañ ko tëj nañ ko kaso defe naa amagul senegal muy ñaareel bu war tax ñu def une minute jagleel leen ñaan ma boole ci nag sàkku ñu ñaanal suñuy soldaar yi nga xam ne tey ñi ngi aar réew mi rawatina fële ca Casamance te chaque fois ñu dégg ci ay bakkan yu rot muy suñu armée nationale di ay jàmbaar di ay patriote waaye nag di armée boo xam ne armée républicaine la kenn du mus toog Sénégal ba dégg ne armée bi ma ngay tiire ci kaw population bi te bis bu ne ñu ngi risqué seen bakkan ngir ñun ñu am kaaraange kon ma bëggoon ñu dajale ñooñu ñëpp néew ma une minute de silence dama ne une minute de prière kenn ku nekk ci sa gëm-gëm ci sa diine ñu sànni leen ay ñaan bismillah amin jerejeuf bu loolu weso magin ngi nuyu suñu kilifa suñu sering serigne Aydara mbacke mi nga xamne kërëm ak ni ngi place bi di kilifa guñu naw guñu ñu sopp gu yaatu gu ñaanal di ñaanal réew mi sa suné diko ñaanal yal yalla a guddal aw fanam yokk ko wérgu yaram tek ci di remercier coalition yewi Askan Wi gars yi dama bëgg ngeen ma les leaders de la coalition yewi Askan Wi dama bëgg gis ngeen leader yi tew fii ma seedeel leen tey liggéey leader yu ñàkk kañaan ñooy leader yi leader yu am colère ñooy leader yi xam ngeen politique dafa doy waaye mën naa leen seedeel ni leader yi bokk ñook yi nga xam ne dañuy toog di xaar ku ñu àndal ci politique faq salu ba daanu ngir ñu mën a donn ñii bokkuñu si ma seedeel leen ni ñii ay gor lañu ay garmi lañu ay nit ñu am kóllëre lañu ànd ñun ànd gu rafet ànd ñun ci bëgg réew mi ànd ak ñun ci nangulante kenn ku ne ci ñun nangul moroomam limu doon moo tax ku yaakaar coalition Yewwi Askan Wi tas di nga fànde fi nga toog de ndax yàllaa ñu boole te li ñu tax a jóg mooy réew mi kenn ku nekk ci ñoom gaa yi nekk fële ña lay jege di la proposer di la essayer xëcc nga am sa dignité bokk ci projet bi ñu bokk mooy soppi Sénégal définitivement ba faw kon maa ngi leen di gërëm ñi fi teew ak ñi fi teewul parce que ngant amna na bu loolu weesoo nak na leen wax tay touti ci man mi faraluma koo def de faraluma ko def waye fi ma jëm motax ma leen di wax touti ci man ken musuma deg ma wax ci sa waye sax sa su nit di wax wara wax ci man ma ne ko bul wax ci man waaye tey dinaa wax tuuti ci man ndax yéen ñëpp xam ngeen ni maa ngi tudd usmaan Sonko maa ngi tudd Ousmane Sonko du sénégalais à 100 pour cent juddoo ci réew mi yaroo fi Voilà fi que fi musuma tout qui wala gâte-gâte là. tukki yu gàtt gàtt la yàlla may ma nag ma dëkk fépp ci Sénégal sama waay di bawol bawol di siin siin di ganjol ganjol waaye di it fuutanke sama waajur bu góor di Casamance kon ma ne Sénégal ba mu daj amul fu may taxaw ñuy séddale te duma duma am sama wàll amut ma ci jamono jii ñeent fukki at ak juróom ñett 48 yàlla nag def ci mbaaxam daañu xëy rek yàlla def ci mbaaxam xiir ñu ci politique waaye lan moo ñu tax a dugg ci politique ñun lan moo ñu tax a dugg ci politique ndax yàlla mayoon nañu ñu nekkoon fa ñu nekk di ci fortaatu lañ cey fortaatu mënoon nañu ne cell ni ñëpp toog seetaan réew mi te bu saaku ceeb doon jar cent mille dinañ am luñ ko jënde waaye dañoo toog ak suñuy moroom ba gis ni réew mi ci mu jóge baaxul waaye fi mu jëm a ko yées ci mu jóge baaxul mooy bi ñu amee indépendance ba léegi mësuñoo ñeme wax li war a wax li war a defar réew mi ak li fi war a génne lu fi war a dog bu mu njaam définitivement waaye fi mu jëm moo ko yéesati ci àdduna boo xam ne tey réew mu ne mi ngi xëcc jëmale ci boppam bu la yàlla na too yow nga am ay njiit yoo xam ne dañuy raam wala ñuy tëdd ci kanamu tubaab yi mun nga am pétrole am gaz am or am zircon am géej am phosphate am suuf waaye ci sous développement ngay dee mun nga am loo bëgg a am te ñàkk koom-koom ñàkk koppar gooma man sa bopp ci sous développement ak ci ndóol ngay dee ñu ne kon ñun dinañ dugg ci politique te buñ ci duggee nañu am sañ-sañ ne lii moo doxul ci réew mi ragaluñu ci tubaab ragaluñu ci américain ragaluñu ci kenn donte nag respecté nañu kenn kenn ku nekk ci ñoom lii moo ñu tax a dugg ci politique. may gërëm balaa may continuer may gërëm gendarmerie nationale ci seen taxawaayu tey ndax bi ñu duggee Kër masaar ba léegi ñu ngeeg ñun encadré manifestation bi dañ nañ ñu ne pour jàppale sécurité bi xal yoon ba ñu yegg si fii lii li muy wone mooy buñ ko bëggee te respecter suñu constitution respecter suñuy loi bis mu ne ay sénégalais mën nañ manifester ci jàmm ñibbi ci jàmm te kenn du ci gaañu bagage du ci yàqu ndax ñoom ñi takk der ñoom ñi sol tenue ak ñu ñi ñoo bokk réew mi ndax liy indi problème yi mooy yow nga yor nguur ne man dinaa manifester saa yu ma bëggee waaye ki ne ci kujje bi du manifester ci réew mi loolu rek ay indi problème yi waaye daje waxtaan suñu waxtaan ñibbi gisuma lu mu yàq ci réew mi bañ koy tere. ñaareel bi ma bëgg a wax balaa may continuer mooy di leen gërëm yéen ñëpp ñi fi teew di leen gërëm bu baax de. te it te it di leen ñaanal kenn ku nekk ci yéen mu dellu ci këram ci jàmm ndax ñu bëri ci yéen jóge nañ fu sore sore te dañoo dox ak seen tànk ba yegg si jóge nañ sore sore jël ay oto ñëw nee nañ ñu nag am nañu ñu doon ñëw police jàpp leen booru Thiès may waa police. buñ leen bàyyiwul ba meeting bi passé su ma jógee fii Thiès laa jëm ndax nag jaay doole bi dafa doy ci réew mi te koy moyetu di ko moyetu di ko moyetu te moom seetul dara day am fu mu toll nga woon ko nag ëppalewu la ci réew mi kon ma continuer ne lii moo ñu taxoon a dugg ci politique bañ ca duggee it joxuñu nit ñi xaalis ndax yoruñu ko digguñu leen ñëw ñu def politique di xesee xëcc nit ñi teg ko ci mbokk moo xam ñoo bokk dëkk wala ñoo bokk xeet wala ñoo bokk tarixa wala wala ñoo bokk lii wala lële wala waaye dañoo ñëw waxtaan ak yéen ci ay xalaat waxtaanee ak ci vision ak gis-gis loolu moo ñu boole ñu rek yéen moo tax ànd boobu àndu dëgg la te àndu dëgg moo mën a soppi réew mi loolu tax fuñ leen woo ngeen wuyu ñu fuñ leen woo ngeen wuyu ñu suñ leen laajee sax seen koppar ngeen jël seen poste joxe ma feddali lewaat leen billaahi wallaahi wa tallaahi du ngeen musa toog ba ne am nañ déception du mus am billaahi wallaahi wa tallaahi du ñu mus toog ba ngeen am nañ déception mukk ci àdduna am na loo xam ne góor moomu ko te gëm nañ ni ay góor lañu réew mii jaral nañu lu ne waaye jaral na leen lu ne loolu moo ñu boole kon bi ñu duggee ci politique di waxtaan ak sénégalais yi ah métti na de début bi ñett ak ñett la ñu woon muy ñëw ndànk-ndànk di ñëw ndànk-ndànk gis ngeen yàlla bu nammee def dara ci ñu jiite ay mbir day xotti xolu nit ñi dugal leen fa loolu la ñu yàlla may suñu digganteek Sénégal mérite bis mu ne ma wax ko ñi fiy def politique yëpp gënuñu leen ëpp leen jàng ëpp leen alal ëpp leen xam-xam waaye yàlla bu nemee ay mbiram moo koy jaarale fi koy jaarale bi loolu amee nag macisal ak ay ñoñam ne faw rek ñii ñu faagagal leen faw rek ñii pexel leen njëkk nañu dem ne nañu jaar fañ doon jaare gaay fañ doon jaare gaay mooy lan mooy nañ dem càmbar ndax fi Moussa jaar di fa liggéey am na fa luñ fa mën a am dossier bu ñu teg ci ndondam ba mën koo faagagal yóbbu ko rëbës dem nañ impôt domaine ba ma ne woon amul impôt bu ma Moussa jaar te demuñu fa conservation foncière bu ne dem nañ fa di xool ndax am naa ay terrain dem nañ seet ay chef d'entreprise ne leen kii de mos na leen a vérifier année sangam est-ce que daf leen laajoon xaalis wala joxoon ngeen ko xaalis mu nangu wër nañu fu ne gisuñu lu tool ni tarfata ay xam ngeen ndax lan xam ngeen ndax lan alalu àdduna jaraluma may def loo xam ne ëllëg dinaa taxaw ak sama boroom ñu naan ma dërëm bii fan la jógewoon loolu àdduna àdduna jaral ma ko musuma jël dërëm bu ma moomul ci àdduna musuma koo def te duma ko musa def abadan parce que amul lu ko jar te yéen it ëllëg bu ñu yàlla dénkee réew mi ñu ànd ak di liggéey bu leen dara jaral ngeen jël xaalis bu ñu bu ngeen moomul rawatina nag alalu mbooloo li ñëpp bokk ba ko fa tudd bi ñu demee ba tële ci loolu ñu nekkoon nañ ko diaboliser nañu yàq deram daa yónnee ay mission fu ne dem seeti kilifa gu ne dem ci tubaab yi suñu demee ci ay kilifa ne leen kii salafiste la kii tarixa lay bañ kii diine la bañ a dégg kii bis bu nekkee président la république dégg nga ma màggal ak gàmmu sax dina ko fi tere fu ñu dem wax fa wax wax wax yàq der yàq der yàq der waaye lu ñu def def def yàlla na saxal lu ñu def def def yàlla na saxal ñu seeti tubaab yi ni leen kii tubaab lay bañ a dégg bis bu fi nekkee tubaab dootul dugg Sénégal ñëpp lay génne ci réew mi waaye tubaab yi am nañu xel de te ñoom ñëpp bokkuñu it waaye li gën a am solo du tubaab ya ñun neexaluñu tubaab seetuñu xam nga ni am solo mooy yéen askanu Sénégal bëri na tey. bëri na tey ñu teew fii ay at ci gannaaw de xam naa ni ñu ci bëri ay at ci gannaaw bu ñu déggaan Ousmane Sonko sax boo moytul liñ ciy teg du doon lu rafet xam nga loolu mooy mbirum yàlla yonent yi yàlla bu leen yónni waan bu ñëwee di commencé wax kenn du leen déglu suñuy wax sax nit ñi dañuy fatt seen nopp mais gis nga dëgg boo ci nekkee te gëm ko lii génn ci làmmeñ te di dëgg day dugg ci xolu nit ñi comme ndox ni muy duggee ci suuf bu tawee loolu moo indi lii kon ñu nekkoon entreprise de diabolisation bi jàppul sëriñ si ñu demoon gis di leen wax lu ñaaw ci sonkoo gëmuñu ko sénégalais yi ñu doon gëmloo gëmuñu ko tubaab ya seen intérêt la ñuy xool De Gaulle moi ne les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts bu les leeree ni sen intérêt fii Sénégal Moi ñu naxtaa ñu naxanteeg Ousmane Sonko parce que au Sénégal Ousmane Sonko la ñu andal. dinañ ñëw ram ci kanam Ousmane Sonko naxanteeg moom noonu la tubaab di doxali moo tax askan wi rekk am solo moo tax ñu la souveraineté appartient au peuple Moyen, yeen pop rek mo am solo ku bëgg defal rew fexel ba jubok sa askan fexel ba degok sa askan fexel ba sa askan nangul la waye fogg ni yor nga armée yor nga gendarmerie yor nga police yor nga justice ku wax nga dóor waye askanu senegal kan mo bëgg makissal kan mo bëgg makissal kan mo top Macky Sall dama né kan moo fi top Macky Sall parce que da nga gëm parce que da la doy ñiko top ñep xaliss bu muy séddale motax ñu top ko ken gëmu ci woté won meeting fi te génnewul xaliss bu dul jeex kenn du ñëw te bu génnee xaalis it ku ñëw quatre heures cinq heures jibbi nañ ñoom ñëpp kenn du ko fi toogal ba heure bi loolu lu ma xam la yéen ay gor ngeen ay patriote ngeen yéen ñu bëgg seen réew ngeen te bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk bu leen jàpp ni jaamu yàlla julle koor ak yooyu rek la de waaye bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk ndax nag yàlla bi muy wax ci suratul baqara inni jaayilun fil ardi xalifa xam ngeen xalifa boobu mooy lan kenn ku nekk ci ñun ñi xalifa la xalifa nag mooy fa nga dëkk sa kër gi nga dëkk ci koñ bi nga dëkk ci commune bi nga dëkk ci réew mi nga dëkk foofu la sa devoir njëkk a nekk ñun ay sénégalais lañu kenn sant ñuy dem defar France wala Japon wala États-Unis ñun Sénégal la ñu war a defar buñ demee ci kanam borom bi dinañu laaj ñàkk ngeen defoon ak seen réew moom ma leen bàyyi woon yéen loolu ngeen moo tax ngeen toog fi ba heure bi loolu nag la Macky sal ne tey foog mu dakkal ko loolu la Macky Sall tey faw rek mu dakkal ko bi ñu demee ba gis ni diabolisation bi doxul ñu gis ni lañ doon wër ci ay dossier pour mën na ne mës naa jël dërëm fii wala la ne amul ñu ne nañ ko organiser ab complot dégg leen ma bu wax wax leen ñu ne nañ ko organiser al complot fi ñu fële moo gën a bon fi ñu njëkk a sax mbokk yi ñaari at a ngi nii waxuma ko pour jooytu de du ngeen mës a gis soo ko jooytu du ngeen ko mës a dégg xam ngeen ndax lan man yàlla laa gëm yàlla dama koo gëm wóolu ko dama koo gëm wóolu ko moom kese nag ma jël sama lépp teg ko ci loxoom lu ñëw rek mooma bu neexee mooma bu naqaree moom la bu neexee. alhamdulilahi bi ni'matihi rek bu naqaree alhamdulilahi ala kulli xaal waaye lépp moom la rek moo tax waxuma pour jooytu waaye ñaari at yi weesu Macky Sall ak ñi mu àndal teg nañ ñu man ak sama njaboot teg nañu injustice boo xam ne teg nañ ñu ay métit yoo xam ne yàlla rek moo ko xam ñu muñee ko yàlla nag ndax ku muñ ngir yàlla rek yàlla jeexal ko fenk nañu seen fen boo xam ne fen musu koo gën a rëy daal koy def ci anam goo xam ne lañ ci njëkkoon jublu mooy nañu gaaw jàpp ko tëj ko kaso ngeen taxaw ne loolu du fi amee askanu Sénégal yëpp taxaw ne du fi amee ñu dellusiwaat ne comme loolu am na nañu naxante dem uti doole waaye ci diggante bi nañu attaqué këram fexe ba tas këram tas njabootam métital ay soxnaam métital ay doomam daal di yónnee ay nit ñu nekk ci média yi suba ba ngoon jot fu mu gën a ñaawee rek ñu tibb wax ko ci sama kaw. loolu musul am ci politique Sénégal musuñoo yegg fii wallaahi nit gënul bon Macky sal ci suuf man maa leen ko wax nit gënul bon Macky sal ci suuf parce que politique jarul yenn yi nguur jarul yenn yi te ñi muy yónni ñu nekk ci télé rajo di wax yàlla xam ne ni mën nañu fajal suñu bopp te nag ma wax leen nit jamono jii nag foofu lañu ñu toll maa ngi ciy ñëw maa ngi ñëw ci loolu maa ngi ñëw ci loolu dina ñëw Sidika dina li xew ci jamono yi ñun wàccoo nañu ak Sénégal dama leen ne dinaa leen wax tuuti ci man tey may wax te yàlla seede ma am na lu ñu liggéey ci Sénégal ci diir bu gàtt am na lu ñu liggéey ci delloosi Sénégalais yi ci bëgg suñu réew te xam ni lañuy gis feneen ak feneen. mënal nañ ko suñu bopp fii ci biir réew mi loolu am na waaye lii ñu fenk génne ko ñun wàccoo nañ ci ak senegal moo tax ma ne man egg naa sama terminus ci seen dossier tappale bi egg naa sama terminus de ndax li xew daaw bi daaw jéeg bi mu xew ba pare ba kilifa yi wax ci ñun jàppoon nañ ni Macky dina am jom dina am jom daal di bàyyi li muy def waaye ndekete moom même kilifa yi da leen doon nax da doon essayer jëfandikoo kilifa yi pour mun a am temps pour ne mu ngi dem waajali boppam pour ñëw dal ci kaw askan wi kon kooku amul jom te dafa gaaw fàtte. ndax ñi doon yónni ci moom condition yi ñu ko fekkewoon mars 2021 mu toog ci këram di jooy ni xale bu ndaw sol ay pantoufle toog jabar ji naan nguur gi yàllaa ñu ko joxoon nguur dafa am bakkan bu jeexee rek jeex na anam yooyu mu nekkee woon ba gëm nguur gi jeex na bu ko yàlla jàppalee ba mu génn ci loolu war waroon naa xool neneen nu muy doxalee nu dul nii te bu bëggoon réew mi dina moytu luy taal réew mi Macky Sall bëggul Sénégal de moom ak ay ñoñom dañuy jëfandikoo Sénégal pour liñ ci am ci alal waaye ñu Sénégal moo tax ma ne ñun dossier bi wàccoon nañ ci ak Sénégal dañuy wax respect des institutions de l'institution judiciaire respect institution judiciaire boobu moo tax bi ma juge d'instruction woowee yéen ñu bari da ngeen ne woon du dem du dem du dem may leen nañu dem rek ndax ñun xam nañ ni lii ay feni neen la te am nañu suñuy preuve yoo xam ne war nañ koo teg ci taabalu juge d'instruction kon nañ dem uyu juge waaye bi ñu demee jox nañ juge d'instruction rapport gendarmerie jox ko ay audio jox ko ay kayit jox ko lépp waaye bi loolu yépp amee gis nañ ni moom Maham Diallo xam Diallo du nit ku baax xam Diallo xam na ni moom fen na fenal na boppam fenal na justice fenal na askan wi yëpp waaye bettu ma ndax anam yiñ ko tànnee xam nañ ko fiñ ko tànnee Sénégal yëpp xam na ko te lii mu def nii dina ko topp ba dundam di jeex parce que du yombee noonu ah comme nag def nañu loolu ñun jàpp nañ ni suñu terminus egg nañ fa kenn duñu këll këllee kenn duñu fontoo kenn duñu jaay doole suñu terminus ci dossier bi egg nañ ci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 na rek dinañ déggoo su ma waxee loolu bu leen ko déggee nee na mi déglu leen ma rek dinañ comprendre ante loolu tekkiwul ni damaa dem jox sam bopp Macky sal xam ngeen lu muy tekki mooy Macky sal dina jël suñu bakkan wala ñu jël bakkanam su dee dafa bëgg a continuer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 ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora yi est pare ngeen est-ce que pare ngeen dañu xeex de lọ tuntun rẹ́mà iná máa lè lè mama iná lè Sall waxal ak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 loolu tax mu génne jaasi dem xex kom ñep man de ñi nga xam fukki bakkan ak ñent yi nga xam rot na ci mois de mars ñun ñu leen waru ñoo gëna goré gore te projet bi nit bi ñu ba tax ñu génn buñ ko sàgganee ba Macky def limu bëgg kon ñun dañoo gore di Macky Sall na xamni dinañu xex ak mom ñu dem jënd ay arme Israël ñu dem jënd ay arme Ukraine na def lu ko neex waye su delul gannaaw dinañu xex ak mom te nak bu leen ci déglu kenn ku leen nan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna parce que fitna bi kenn ko yor Sénégal mi ngi moy Macky Sall est-ce que paré ngeen man ma len wax li budé paré ngén té Macky Sall né fi mu nekk lay nekk du yeggali mandam 2024 du ko fi fekk may wax nak wa APR ngén dégg mo baax wa APR li ngén nekkee ci dëkk bi dina jéx dé ndax ñun ño bokk dëkk fi koñ bi boo fi duggoon balaa koñ bi di jeex responsable après mi ngi fi dëkk fi lan la ñu yabee ak lan ñuy fontooy parce que jàpp nañ ñoom ñoo yor nguur rek nañu xam ne bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu yaakaaree ni ay ndaw Pastef ndaw opposition ndaw yeewi askan rek ñoo ci ñàkk seen bakkan wala lañ ciy tëj kaso juum nañu de gàtt sa gàtt sa rek léegi gàtt sa gàtt sa Gatsa gatsa rek bu len vous bu len nexé nañ ko avez appel à insurrection man Ousmane Sonko quoi. tout wax gatsa gatsa rek dootul demee noonu jeex na tàkk justice nak lay waxal magistrat yi nañu respecté peuple bi

procureur Bassirou Gueye fen ci ay fen yu ko neex def ci lu ko neex juge Maham Diallo def ci lu ko neex foog ngeen ne ñun dinañ dem toog ay juge ñu tànn naan dañuy juger ñun magistrature ci réew mi ngeen dëkk ki leen di garantir ni mun na leen assurer sécurité kon de nañu ut derrière chaque maison de magistrat derrière chaque famille de magistrats nañ fa teg une armée li ma wax nag li ma wax nag tekkiwul ni magistrats yëpp noonu la ñu mel am na ci ñu ciy def seen liggéey correctement waaye ñiy def lu dul yoon ba pare foog ni mun nañ ci mucc su réew mi takkee nañu xam ne dañuy nax seen bopp lii may wax nii moom lañ jàppee barki démb nit dof pourtant lii du menace lii araftu la wax leen nañu arrêté li ñuy def balaa muy trop tard parce que sénégalais yi ils nañu ci lii lii dafa ñaaw ci au mi sénégalais yëpp pas ne ñi ñi ngi pexeel Ousmane Sonko ñëpp en train ni complot la mais ñoom nee de dañuy continuer soo waxee ñu une force restera à la loi force restera au peuple sénégalais force restera au peuple sénégalais parce que la loi c'est le peuple sénégalais kon suñu buggee réew mi jàmm am na fi suñu buggee jàmm am fi magistrat am jàmm alkaati am jàmm ñoom ak seeni njaboot homme politique am jàmm fonctionnaire am jàmm transporteur am jàmm baykat am jàmm étudiant am jàmm ke ñëpp am jàmm nañuy jàmmalante nañuy jàmmalante te respectante parce que mbir mi dafa ëpp lii nag bu leen jàpp ni seen tappale googu ñu ngi koy yemale ci dossier rek biñ naan dossier siif ndax dégg ngeen seen ministre bu waaye di boobu may wax mu naan xaw ma lan ak lan dem na déposer benn dossier nee na diffamation may wax fii ñëpp dégg ko diffamation amul diffamation amul ndax dama lire benn document boo xam ne rapport IGE bu nekk ci internet la rapport bi ne épinglé nañ ko moom Mame Mbaye ci ay tooxi doone yi mu def moom ci Prodac ma waxaat ko fii ñëpp ko man maa ko wax waxaat ko fii ko mu dem déposer dossier boo xam ne diggante nit ak nit la waroon doon waaye procureur da koo écarté moom jël dossier bi procureur loo xam ne diffamation la diggante nit ak nit kon léegi diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko la xam nga ñoom lu ñu gëm mooy mun nañu dossier bu mag ba sax ñu bàyyi ko jaare ci dossier yu ñàkk fayda pour ne condamné nañ ko à deux mois ou trois mois avec sursis du nekk candidat en deux mille vingt quatre ma wax leen ni dinaa ko wax fii tey normalement dañoo am ay texte partie bi texte yi dafa am fooy jaar pour ñu ne kii mooy candidat waaye wax naa ko fii tey ndax ñëpp nangal nañ ma ko Pastef les patriotes a un candidat en 2024 il s'appelle Ousmane Sonko ben candidat la ñom amuñu candidat de substitution amuñu candidat de remplaçant amuñu candidat de dépassement, amuñu candidat ceci ou cela nous avons un candidat et qui inshallah, dina nek candidat 2024. wa justice sen bopp lay wax nañu génn ci politique bi un rôle du écarter des candidats. C'est le rôle de comploter contre des candidats Omar Maham Diallo n'est ne man criminel la fenn ci kanamu yalla xam ni je ne suis pas un criminel xam suis ni duma criminel musuma sacc musuma ray musuma agresser, musuma sif pourquoi mu may renvoyer en chambre criminelle Non, mom suis criminel mom ko def parce que ce qu'il a fait c'est un crime te crime bo xamne ay bakkan mën na ci rob kon mom moy criminel motax kenn ku nek ci yeen na fagaru kenn ku nek ci yeen na préparer ta xam len ni xam nga da ngeen len digel da ngeen wax digel digel gi dina ñew tok len degluma tok len rek degluma ci fan yi buñu xamé ñom fañ jëm dingeen am ndigal bu dee fitna la ñu bëgg dinañu am fitna bu dee jàmm la ñu bëgg dinañu am jàmm ndax ñun ñun nitu jàmm lañu ndax ku ñuy dóor boobu ba léegi di rey boobu ba léegi di la kaso boobu ba léegi ta nga ne teg nitu jàmm ga waaye nag jeex na de Macky Sall bu dee jàmm la bëgg dina am jàmm ba mu mat sëkk waaye bu dee safaan ba bëgg dina ko am ba mu mat sëkk tamit waaye déglu leen ci fan yi rek ndigal gi dina ñëw may ñaan tamit may ñaan tamit suñu mbokk journaliste yi seen liggéey rafet na te gëm naa ne ay patriote ngeen léeg-léeg nit wax ci journaliste ma ne ko d'accord ma ak yow mu ne ma ah yow dafa mel na nga changé ma ne ko journaliste ñu ngi def liggéey bu am solo ci réew mi ndax saa su ne boo xëyee le matin lire titre journaux yi bi fi coow amee ci xaalis bi ñu sàcc ci affaire corona bi bu journaliste yi noppoon boo moytul affaire boobu fay na bu yàgg bis bu ne ñu bind ci dafa fekk léeg-léeg peut-être kenn ku ne ci ñun da ngay bëgg yow li nga bëgg a dégg rek ñu la koy wax waaye presse baa ngi def liggéey bu am solo de. bu waxee lu naqari ci ñun nañ ko nangu bu naqari ci keneen ñu xam ni la waaye liñ leen ñaan mooy ñoom dañu am rôle ci li stabiliser réew mi di micro ay nit yoo xam ne saaga ak xaste ak wax lu bon ci nit na parce que loolu taal ay réew nañ ko moyetu gis nga Donald Trump li muy président Amérique li muy nekk président Amérique yëpp bi mu nekkee ci benn chaîne télé wax ba wax lu ëpp chaîne bi dafa coupé émission bi ci saa si yeggalewuñu ko waaye Sénégal ngay gi nit toog ci télé di wax lu bon ci nit di ko saaga di wax ci njabootam di wax ci ay param ñu taalal ko micro bi rek muy wax loolu nañ ko moyetu parce que day taal réew mi loolu du rôlu presse nañu waxtaan waxtaanu idée débat dîner ku nekk ñëw ne man lii laa xalaat ci réew mi lii laa gis ci mbay mi lii laa gis ci njàng mi lii laa gis ci ressources naturelles yi loolu mooy avancé loo réew kon presse bi am na un rôle ci li war a tere fitna am ci réew mi ma leen lancé appel boobu rek li ci des nag kenn ku ne ci yéen na waajal te déglu waaj leen te déglu li ma nag quatorze régions Sénégal yëpp laa waxal parce que bu jàmmarloo nar am du yem Ndakaaru kese de du Kër Massar kese du yem kese quatorze régions Sénégal yi la wax quarante six départements yi laa wax cinq cent et quelques communes yi laa wax ak suñu mbokk yi nekk diaspora déggu ngeen ngeen xaar ba ñu xam Macky Sall fu bëgg a jëm ak ay tappalem bu boobaa dinañu fekk fii J'aimerais lancer quelques mots en français avant de conclure.